waaye di rafet bu baax ndaje bi nga xam ne COSYDEP euh, moom moo ko organisé euh, pour pour euh, syndicat jàngalekat yi nga xam ne dañoo war a dem waxtaan ak gouvernement bi si système payoor bi nga xam ne moom la état bi bëgg indi fi Sénégal. te loolu amna liko jitu moy amna ben euh, étude bo xamné dañ ko réaliser sur le système de rémunération des gens de l'État étude bobu nak euh, ñun dañ koy rafetlu waaye nak étude bi aussi amna lo xamné xam ne wax na ko pour ñun am lo xamné également leeralu ko moo tax nag aussi euh, COSYDEP organiser échange bi cadre bi panel bi invité ay experts si walu payor si walu impôt si walu donc fiscalité si lepp lo xamné day day nak système donc de rémunération pour ñu léral ñu étude bi donc euh, lan mo réellement euh, lan la pour ñu xam tamit ñu tamit ñu jël suñu matuwaay bu ñu dem di gouvernement bi ñu xam tamit donc si yan la taxaw parce que bëgguñu aussi ku ñu nax motax aussi dialogue social euh, tegu si dëgg fay tegu tamit donc si xam-xam aussi dem di négocier si ku toll ni xamné amna puissance amna expert amna expertise amna ay moyens yow tamit war nga mën a jël say matuwaay vraiment pour boss bo démé tamit ñu ñu bañ la nax ñu bañ la lu dans la farine ba xamné par exemple résultat bi ñuy am mo résultat li ñuy wax gagnant-gagnant bo xamné Sénégal dina ci am ndam mais ñun ñi tamit en tant que enseignant aussi en tant que syndicaliste aussi mën nañ ci am ndam.